713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ ñu nee góor ngóoraa tax. nuyu na leen bu baax a baax mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 le point de la rédaction muy jotaay yi nga xam ne si dañu koy amal saa su nekk fii ci euh, Sunugal 24 euh, di ci waxtaanee lépp loo xam ne si nii actualité la moo xam lu mu ci doon di dinañ toog fii man ak Moustapha ñu daal di koy waxtaanee indi euh, faram-fàcce ko donc moom Moustapha dama koy bàyyi mu daal di nuyoo bu nuyoo ba pare. di soog a jàll ci waxtaan bi noo def Moustapha. maa ngi fii maa ngi lay fay di nuyu képp xam ne dafay ànd ak suñu jotaay xibaar mi ngi noonu dañuy daal di wax ba ba fi nga xamante moom mooy assemblée nationale donc euh, foofu nag député yi euh, tey jii lañ fa war a daje ngeen amal ab plénière jëm ci wàllum report euh, bi nga xamante ni Macky Sall bëgg na ko ci élection locale yi nga xamante ni moom dafa bëgg ñu daal di koy amal ci fee weerum février atum 2022 donc député yi nag projet de loi boobu tey jii moom la ñuy yóbbu ci assemblée nationale ci teewaayu ki nga xamante ni moom moo di Antoine Diome nekk le ministre de l'intérieur ah, donc moom moo war a teewee boobule plénière jàkkaarloo ak euh, député yi donc daal di addu jëm ci li tax ñu war a euh, yóbbu boobule élection ci euh, février 2022 waaye Moustapha ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci société civile ñoom la ñu bëgg rek mooy ñu daal di amal yile élection ci fin janvier 2022 waaye tamit ku jëkk politique yi di opposition bi moom la mu bëgg rek mooy ñu daal di amal li nga xamante ni moom mooy local yi ci date ban ko jàppoon muy décembre ans euh, donc euh, ñoom loolu la ñuy daal di bëgg waaye nag lu ci mën teem daal mooy projet de loi ba moom euh, ma nga fële jamono ji ci assemblée nationale député yi nag ña nga ca plénière ba buñ ca noppee daal di dinañ jàll ci vote bi ngir ñu mën yóbbu boobu les ci février 2022 Moustapha mu mel que ni report yi moom mi ngi gën di bëri ci élections yi nga xamante ni moo jëm ci local te mu te nga xamal si ni tey ñi di élus départementaux yi ak municipaux yi ñoom la daal nar a yokkaat seen mandat. waaye ñoom la ñuy seen mandat et c'est regrettable tey bu ñu demee ba toll fii suñu démocratie ak suñu débat réew ci ay élections législatives ay élections locales yoo xam ne kenn xamul kañ lay am loolu yaakaar naa ne du loo xamante ne méngoo na ak suñu démocratie dëkk fu mu toll. Mhm.

yenn yenn yenn écarts yi nga xam ne dañ koy constaté ci tentative yoo xamante ne dafay am ci ay ci ay mbirum jéem a jaay doole. Mhm. ci mbirum euh, constitution ni koy yooyu yëpp lépp luñ ci mën di wax rek Sénégal moom démocratie am euh, na ci am image boo xamante ne euh, rafet na nit ñi di ko gis mais nag dafa toll foo xamante ne dafa am yoon bu ñu koy gis. Euh, pour man yaakaar naa daal débat bi tey ji waru woon mais boo xoolee li ñu gën a sonal ci wàll yooyu dafay bokk ay calcul politique mhm. parce que bu fekkente ne élection locale yi dañ ko jàppoon report bu njëkk bi ñëpp ci àndoon parce que bu mhm. fekkente ne dañ ko jàppoon euh, décembre 2019 ñu ngi jóge ci février 2019 élection présidentielle mhm. ñu ne ah benn année bi kat peut ñaari nañ ko dàq ba 2020 ñu jàpp ñu ñëw ba mars ñu ah, décembre 2021 ñu ko jëlee yóbbuwaat ko. février 2022. mais xam nga loolu tamit finalement day am lu muy ndur. Mhm. pour man yaakaar naa ne décembre 2021 bi waroon nañ waroon nañ ci mën a def élection yi. Mhm. xool naka la ñuy def ba dem élection moo gën mais dafa am ay da koy gis. Mhm. ñenn ñenn ñi wax euh, audit fichier bi ak euh, bi. audit bi yooyu mën boo xam ne calcul politique il faut ñu génne ko ci. parce que actuellement. Euh, booy booy lire jeu politique bi ni muy évolué ni mm-hmm. pouvoir bi yaa ngi chaque fois ñi ngi def ay meeting mm-hmm. ñi ngi def ay rassemblement pour tool di di di remobiliser seen tur mm-hmm. kon jamono ji mu ci defee ay élection dafay xaw a risqué si seen côté loolu dañoo pareegul dañoo pareegul voilà pareeguñu actuellement ba buñ demee ci élection da ngay njort ne am na benn colère boo xamante ni jeunes yi ànd nañu ak ñoom te vote sanction mën na am foofu le temps mobiliser waa troupe yi di defar waat gis yaa ngi dégg waa Podor mhm. waa Matam ak ñi ngi dajaloo ku nekk def ay te du doon foofu kese dina gis yeneen responsable yi ñëpp dinañu woote ay pour ñu mhm. gën a xool naka la ñuy defaat ba dajale militant yi mhm. ñu am ay stratégie de riposte par rapport ak opposition bi nga xam ne tey nii dafa dafa dafa commencé euh, amaat doole di am karaw donc yaakaar naa ne ñoom benn benn stratégie la boo xam te ne quel que soit ak lu ko a dàq dàq mënoo ko fay jëlee parce que loolu tamit moo moo fi nekk. parce que man gisuma loo xamante ni mën na justifier. Mhm. ñu bëgg yóbbu ba ba décembre euh, ba. ba février 2022. te ñu xam ne 2021 boobu noonu. 2022 boobu mhm. élection législative dafay war a amat. Mhm. te boo moytuwul bu ñu ko dàqee législative boobu dinañ ko couplé ak présidentielle. Mm, d' accord euh, donc suñu amalee suñu amalee euh, élection locale yi ci février 2022 dafay mel ne kon moom mooy dàq élection législative yi daf koy dàq normalement daf koy dàq parce que. mais yaakaaruma ñu def ko. mais est ce que est ce que du metti suñu bëgg def est ce que du loolu mooy motif bi day metti suñu bëgg organiser parce que euh, élection ku nekk xam ne xaalis bëri koy organiser euh, suñu bëgg organiser ci même année bi ñaari élection dafay xaw a day metti Moustapha ci. loolu donc moom mooy tax dañuy reporter euh, li nga xam ne mm-hmm. reporter boo dañuy dund boo ma dul 2022 2023 2024 ay élection mm-hmm. boo defee 2022 local 2023 nga def législative 2024 nga dem présidentielle. mu bu fekkee uh-huh. na année bi uh-huh. nga jóg ne candidat la ñi nga xamante ne dañuy wër siège Macky Sall daanaka loo ci defoon dootu ko mën a def uh-huh. kon dañoo jëm ci année yoo xamante ne année élection la te loolu moo tax ma yaakaar na tey jii buñ ko dàqee yóbbu ko ci bëri. Mm-hmm. gën a guddal jël rek. mais pour man waroon nañ ko mën a bàyyi fi mu nekk décembre bi. Mm-hmm. Euh, comme euh, bi bii passé ñëpp nañ ne mbas meeg yooyu yëpp c'était mm-hmm. compliqué. mais décembre bi waroon nañ mën a jéem xool naka la ñuy ba sàmmante moom ñu ko daal di dàq lépp loo xam ne ay calcul politique. mi ngi noonu euh, ci réew yi nga xam ne si nii ñoo ñu wóor sax gis nañ fi Moustapha ñoo xam ne si nii organisé organisé nañ seen ay élection mu xam sax élection yi gën a mag que locale muy ci biir mbas mi je pense que réussir nañ ko amuñu si benn amuñu si benn problème je pense que li Macky Sall def wax ne Eh, mbas mi moo tax mu ñëw organiser élection tamit loolu aw lay la rek mais tamit mën nañoo amal li nga xamante ni moom moo di. aw aw la. sax rang la waaye. Mm-hmm. ñu mm-hmm. Mm-hmm. ay ay lay la ay ba tax na euh, kii di nga xamante ni moom moo di opposition bi xam naa ne ñoom ñoom euh, bu ñu sañoon élection locale yi nekk suba ndax jamono ji seen euh, seen affaire baax na askan bi jox na leen bopp ginnaaw yi fii xewoon yëpp nga xam ne ak Ousmane Sonko ni ko nit ñi joxe bopp moom moom bu sañoon yëf yi nekk suba ndax am na ci yaakaar trop ndax li nga xamante ni tey jox nañ ko bopp surtout ndaw ñi waaw xam nga ñu bëri dañoo yaakaaroon ni maa ngi sax benn journal mu mu mu def benn genre de comparaison indi Ousmane Sonko ci perdre affaire mhm. mhm. mais xam nga dafa am mbir moo xamante ne coow li ni ñu ko yaakaaroon ak ni mu amee dafa dafa bett ñu bëri. Mhm. ñu bëri bi coow lu jógee bi ñu toogee dañu Ousmane Sonko bu dee dem na ci salon bi dootul tekkee dara bu demee loolu mais dañoo gis mbir mi après ni mu tourné woo di tourné di tourné ba finalement. mu mel ni dafa nekk benn position de force boo xamante ne dafa bett ñu bëri jaaxal ñu bëri. Mhm. ndax yaakaaroon nañu bu accusation yi jógee coowal Adji Sarr fa lay jaaree suuf ba faw mais ñu gis après première sortie bu def siège Y'en a marre ndiiraan bi ko toppoon. bi mhm. def déclaration ni gën a ñuy ñu xam ne kon ba léegi mbir mi amaana am na benn loxo bu ci di jéem a yàq waaye réussirul yàq. mu mhm. doon def. léegi loolu nag bu amee il faut nga tourné waat defar waat xool nag nga pour jàkkaarloo ak moom mm. parce que bu fekkee ne da nga doon dóor nit ki ku kaw pour mu daanu kaw mm. nga dóor ko daanuwul mais mu dóor la yow nga tertere mm. mais il faut nga da ngay daanu man yaakaar naa ne situation boobu lañ toll moo tax actuellement ñu jéem a xool naka la woo naka la ñuy def ba mën a defar seen ay élection ba mën a dem élection te duñ ci am te duñ ñàkk wala du am yoo xam ne parce que politique tamit bu ñu fàtte ne benn moom benn weer ak topp lu nekk mën na cee changé. Mhm. xew-xew bu nekk mën na ci am. Macky Sall 2009 la jóg 2012 mu jot ci réew mi. Mhm. donc kon kooku tey jii 2008 ak 2007 ñëpp ñu ngi doon suur bi bi ñu génnee ci 2000 2000 élection 2007 lu ñu doon wax Idriss Seck bii di ñëw 2008 formalité lay doon certainement parce que dañ naan à part Idi kan moo fi nekk. moo fi desoon. ñu gis ne dem na boobu amul ba 2019 mu ñëwaat amul. Mhm. loolu moo tax politique doon lu compliqué. Mhm. tey ji am na ñu nekk ci opposition bi ñoo xamante ne ñu ngi commencé di am di di di yeewu di di fucceeku ñooñu tey ji dara wóoruñu ne d'ici 2024 mën nañu ëpp doole Ousmane Sonko. Mhm. wala d'ici 2024 du am beneen leader bindoo noonu. Euh, ba tax nag ki nga xamante nii moom moo di euh, Karim Wade ak euh, kii di Khalifa Sall ñoom ñoo nga doon demandé sax lii di amnistie ngir ñu mën mën a delloo

foofu ca assemblée nationale di amal boobu la plénière jëm ci report bi eh, Macky Sall nag ba ba 2022 2022 février la ko bëgg a yóbbu te xam naa ne comme moo am majorité moom nañu jàpp ne eh, tey élection yi eh, février 2022 lay lañ lañ koy lañ koy amal puisque Macky Sall moom moo am majorité à l'Assemblée nationale certainement euh, euh, <laughs> moo fa nekk lu ñu bëgg moo fay am dañu bu la fekk dañuy gaas di ñaxtu mais wax mhm. moo fay am moo fay am mhm. loolu mooy malheur bi mais mhm. yaakaar naa ne bu ñu ko tamit dina doon loo xamante ne dafay gën a indi Euh, séparation bi dox seen diggante ak nit ñi parce que déjà FNL moom quitté nañ dialogue bi. Mhm. ñoom génnoon ñoom. daanaka dinañ waxtaanatu ñoom. wa nee nañ waxtaanatuñ bàyyi nañ. Mhm. donc le dialogue est a mhm. donc bu dialogue bu bu daggee dialogue bi te ñu loolu moo doon li nga ne doon may consensus am. lépp lu ci mën di jubluwaat loolu mooy waral suba ay contestation du jublu ay poste électoral mhm. bu élection jeexee ba bu bu amee ba jeexal contestation dafay daal di jublu foo defee fekk ñii di kaas d'accord ma fii côté bi am na mbuxum côté bële am na lépp parce que pourquoi parce que le dialogue a été rompu mhm. loolu moo tax ma yaakaar ne lii du du signe mm. mm. nañu fi mën a defarwaat mën nañu fi defarwaat takkaat ngemb yi bu baax. takkaat bu baax. waaw doole saafara yi. voilà mm-hmm. mm-hmm. a balaa bëree moom day day pare day defar ba jekk gis nga ci élection yi euh, des euh, kii nu mu présidentielle yi defoon euh, daa jël gars yi ñu ko neex rek mu teg leen ak parrainage bi donc ba xam na ñii lay bëreel xam fu mu leen di jaar ñëw dóor ci suuf daal di jàll moom xam naa noonu la ko bëgg a def waaw coup de ñu wàcc donc premier tour la leen dóor ñu wàcc donc mi ngi noonu xam naa ci local yi tamit noonu la bëggee def ndax euh, te nag dafa xaw a metti nag Moustapha ñi nga xam ne seen mandat jeex na bu yàgg ñu toog fii tamit donc dafa dafa neexul quoi ci gis-gis neexul kenn musu ko fi def mandat waaw mi ngi loolu ñu amal nañ beneen mandat gratuit gratuit ñu amal beneen mandat quoi waaw trois ans plus de la moitié de ton mandat nga amaat ko. c' est c' est lu ay puus dem fi ñu doon député fi ñu doon suñu ah vraiment loolu. <laughs> <laughs> kenn du ak ah, kenn du wax. waaw boo ko dajalee tey jii ñoom sax ñoom fi ñu toog noonu dafay doon am daf leen dafa bloqué. du ñu nekk à l'aise am na ñu bëri ñoom dañuy wax ne maire seen légitimité fi ñu toll nii kenn wax am na gox yoo xam ne ñu ngi seew mu abal leen nga teg fa maire bi di koy yokkal di koy yokkal di koy yokkal ñoom ñu koy muñ parce que ci dara. mënuñ ci dara donc placé mënuñ ci loolu. Mm-hmm. loolu mooy loolu mooy dirigeable ci mbir mhm. keneen ku fekk ji Macky Sall après sa Seck ak euh, sa Sall mi nga xamante ni moom jàpp nañ ni jamono ji moom ma nga ca euh, maanaam mbuur ak soow mbuur la moom tamit jox nañ ko mbuusu mbuur ak soowam mu ba mu dem toog euh, maanaam Aïda Ndiongo Aïda Ndiongo <laughs> ça va <laughs> Aïda Ndiongo moom démb daal dinay fekk ji Macky Sall donc amoon na amoon na benn ndaje démb ndaje mu am solo moo xam ne si nii gisoon nañ fi ay ñooñu Macky Sall ku si mel ne Aliou Sall maire de donc moom mi ngi yoon ci wetam mu mel que ni ni euh, Macky Sall am na beneen euh, man noonu laa koy tudde beneen am beneen allié boo xam ne si ni bu am doole bu bees bu bees koo xam ne si ni ci ab Wade la bokkoon. Euh, man dama yaakaar ne am na ñoo xamante ne seen nekk ci kujje gi. Mhm. ñu dem si fekk ci Macky sax benn benn la mu leen di gën a si ñoom parce que am na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci kujje gi daanaka dañoo insignifiant amuñu fa position déggoo leen wax defuñu déclaration. Mhm. conférence de presse ñu defuñu dara. Mhm. dañuy nekk foofu gis ne seen opportunité surtout ñi nga xam ne ay homme d'affaires lañ war ñu am yenn position am ay ambition mhm. dañuy yaakaar ne ñu que moom moo moom moo yor mbir mi suñ ko fekkee ji amaana tey jii dinañ am yoo xam ne mën nañu yi mhm. topp ñu doon topp dañ koy bàyyi wala yenn sama mbir yu bëri yi ñu daan bloqué dootu ñu ko bloqué parce que parfois gars yi nañ la téye foo xamante ne foog nga ñëw foog nga ñëw pour pour pour pour mën a mucc ci yenn yi. Hmm. mais yaakaar naa ne dem ak Aïda Ndiongue moom amul lu bëri a indil Macky Sall. waaw hmm. a apporter Macky Sall. parce que hmm. opposition bi même bu fekkente ne am na nit ñu nekk si ginnaaw ko. mais ndaje ndaje mi dem dafa mel ne amoon na amoon na solo amoon na. ñoo xam si xam nga ndaje moom yomb na. xam nga ndaje mi mel ni parti Déthié Fall bi nga dem da nga koy mesurer ci lancement foofu mais da ngay mesurer la personne parcours am jaar-jaaram ak ak ak ak ak ak nga xam ne liggéey na ko d' accord jigéen la boo xam ne daan na mobiliser ak yëpp ñu nangul ko ko am ginnaaw base am ñu jox ko fa cër tamit mais quoi qu'on puisse dire jamono mm-hmm. ñi nga xamante ne waa kër Abdoulaye Wade lañ daanaka ci amoon base ne parce que léegi kenn amatu ci base. Mm-hmm. parce que léegi ñëpp ñëpp waa dañ pratiquement fenn lañ des ñuy Touba boo jëlee Touba foofu. yeneen yeneen localité yëpp daanaka néew na fooy compter. Mm-hmm. waa PDS moo moo moo ko gagné. loolu moo tax ma yaakaar ne. bu dee côté nit néew na dina néew nit ñu ko topp ji même bu dee côté surplus tamit boo xamante ne yaakaar naa mu am ko ci mouvance présidentielle mu bay gën a bëri euh, frustration yi day gën a bëri mhm. parce que tey bu ñëwee nga ne Macky ko ministre conseil nga gis koo mhm. mhm. yi dañuy gën comme rek euh, kaw Idriss Seck bi nga wax ne léegi mm-hmm. ci biir euh, parti bi am na ñoo xamante ni moom euh, ñi ñi ñi yi lay gën a jox gëdd ñoom sax lay gën a jox pouvoir que ñi nga xam ne nii ñoom la nekk démb ba dara dul dara ku ci mel ne ñu ngi koy gis ku ci mel ne ku ci mel ne ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Cissé Lo mu ñu muy ñu bëri ñoo xam ne si nii tey 2008 ñoom ñoo nekkoon mais ne jamono jii ñu ngi ca gannaaw a gannaaw gannaaw mu jël ñi nga xamante ni tey ay opposant am la ñu woon eh, démb teg leen ci teg leen ci kanam loolu aussi problème problème mu Macky Sall la. Mhm. Macky Sall daa ragal opposition. ñemewul mhm. a fexe noo la bu mu xëcc am doole ngeen a xool ban def rek. soit nga ñëw si man. soit ñu xool nañu lay écarté. et eh, loolu loolu loolu mooy dëgg te loolu lañ fi gis. depuis hmm. ah, mu ne ba léegi je vais réguler l'opposition à sa plus simple expression. Hmm. mais yaakaar naa ne mi ngi ci. mais hmm. xool ci parti yi wër dëkk bi yëpp ba parti yi wër yëpp tey jii bi mu a fa def na tout ba Idriss Seck mi nekkoon à léegi dellu si na. Idriss Seck dellu si ngi pet ñeneen ñi ñoo xam ne ñi ngi ci wet gi naka dañuy fexe ba ba ba ñëw. koo ci gis mu ne ñu ngi ñu ngi may jéem a démarche bi ñu ngi may jéem a démarche fële ñenn ñu bëri ñu takkoon seen ay bagage pour dem sax négocier lañ sottiwul ñu daal delluwaat toog hmm. ce qui veut dire que chaque fois rek euh, li muy am ci li muy ki muy bëgg a jàkkaarloo mooy opposition boobu boo xam ne dafay faible hmm. opposition bu faible boo xamante ne daanaka bu demee moom élection du tekki dara hmm. te noonu la ñu defoon ci élection présidentielle jël jël garab gi waas ko waas ko waas ko bu mu des ñett ñetti branche yoo xamante ne kenn moo ci ñaar moo ci nekkoon candidat du série Ousmane Sonko ak kenn ki ans kenn ki am 20 pour cent. ñeneen ñi mi ngi noonu. boo mm. kenn waxatu leen la preuve kenn ki dem na fekk ci mm. loolu ma yaakaar ne benn stratégie la boo xamante ne rek moom peut-être dafa dafa dafa dafa jàngee ci ni mu demee ak kii di Abdoulaye Wade. Mm-hmm. parce que Abdoulaye Wade ragal woon noonu opposant loolu moo tax mu bàyyi ko mu jàkkaarloo moom. Mm-hmm. bu ragaloon opposant du ko bàyyi mun mi mi mi candidat mi candidat ba ba ba koy daane. Mm-hmm. loolu nag mu jàngee si yaakaar ne opposant boo ko bàyyee mu jóg. jël doole mën na laa faagaat ba loolu moo koy sonal. Mhm. opposant mu gis rek day xool ban stratégie lay soit su ma la defee nii xëccee sànni amoo son bi loo ko bëgg ñëw ma xool nu ma lay gis nañ ko depuis 2019 ba léegi loolu la ñuy loolu la lecture boobu la mhm. ko jëlee lu ñu mhm. que gis-gis boobu la am. loolu moo tax ay transhumance yu te dafa dafa dafa. Euh, weddi woon ne transhumance gëwuma ko baaxul affaire genre yooyu. mais après dafa gëm ne dañ ko gëmloo ne. képp koo xamante ni poids lourd la rek fexeel ba am ko sax boo ko amee rek finalement après te xamul ne am na ñoo xam ne bu finalement boo jëlee ñëpp dina am ñu jublu si ginnaaw ñoo la sonal góor di la Yaya Jammeh ak Adama Barrow mi ngi noonu ba muy ñëw gisul xamul fu mu jaar sax voilà mi ngi noonu mais Macky Sall tey taxawaay bi nga xam si ni am na ko ci wàllum politique eh, ci deuxième mandat bi dafay firndeel rek ñuy wax ni c'est-à-dire loolu moom mooy tax nit ñi di am di am courage naan Macky dafay préparer eh, troisième mandat parce que bu fekkente ne yow sa benn mandat bi moo la dese je pense que waruloo am temps de politique mais da nga war a am temps pour liggéey li nga xamante ni tey eh, ay liggéey la yoo sumb mu nga gaaw ko pare avant sa mandat di jeex mais premier mandat sax politico ko woon dafay dafay dafay compliqué et puis dafay indi ay xel ñaar ci troisième mandat boobu muy ni lam laamee. Macky dina politique ba suñuy jël ay bagages di génn pare bi dugg si oto bi dem sax day. lan politique. bi dugg ci libéraux yi tey jii mu dugg ci benn social libéralisme boo xamante ne moom lay dund ndax socialiste yi ñu ngi ko wër. Ah. ñuy liggéey kooku tey ji Moustapha Niass di ko xelal Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla Amath Dansokho mhm. ak ñeneen di ko encadré di ko conseillé kooku tey ji en matière de stratégie ak mhm. plan politique kooku amul kenn ku ko si mën a jàngal dara mhm. et puis ñu xam ko ni mel ci wàllum politique nga jàng histoire Abdoulaye Wade ni mu dundee ak ñoom euh, Abdou Diouf ak ñëpp loolu moo waral benn acte bu mu posé ko teg c' mu jëlee mu jëlee poste premier ministre c' pas pour rien mu dàqaat local yi c'est pas pour rien c'est pas pour rien ba ba député assemblée nationale groupe parlementaire bi ñuy yokk nombre bi. Mhm. c'était politique donc lépp loo xam ne posé na ci acte politique et si mhm. lu bëri parce que ëllëg ko ñu concentré ci l'essentiel comme ni nga ko mhm. parce que dañ daan jàpp ne deuxième mandat. dañ daan gis ne président boo ko jël mesures yi impopulaires yëpp jël. lii bu ko def nga ne dama koy def parce que sama yoon. nekk si. mais malheureusement bi dafa am benn clair obscur bu muy dundee boo xamante ne mm. ñemewul sax di di tranché carrément mm. parce que mi ngi doon def balance ndax damay dem du ma dem waaye yaakaar naa li fi xew début marché bi tax wax ju indi jiixi jaaxa ji nga xamante nii euh, kii di euh, Bougane Gueye Dany wax na ko démb euh, donc am këru yëglekaay yoo xëy génn nekk ne Bougane dafa tàllal loxo Macky Sall ngir ñu liggéey ci ab vidéo boo xam ne si ni mu ngi ko defoon fële ci Dakar ci buggan Gueye daal di wax ni que moom su fekkente ni makki Sall bu fekkente ni réew mi moo ko tax a jóg Macky sàll tàllal ko loxo laaj ko conseil ci benn mbir boo xam ne si ni mën na ci jox mën na ko mën na ko r loolu donc nee na da koy jox xalaat day dem xalaatal ko jox ko xalaat boobu noonu euh, ñu bari nag jàpp ne que euh, mu mu moom mu moom mu expliqué ne loolu devoir la parce que mënul xaar ba 2024 su fekkee dafa xaar ba 2024 day bëgg Sénégal gi muy wax ci moom euh, dafay dafay des mais day dem jox ko xalaat boobu ngir réew mi mën a jë man a tegu ci yoon ngir problème boobu mën a saafara bu jëm ci wàllum xëyum ndaw mi ñu bëri nag inter am ci benn interprétation jàpp ne Bougane Gueye dafa daal di tàllal ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall loxo liggéey moom def na démenti sax donc mu mel que nii tamit léeg-léeg euh, maanaam interprétation yi dafa indi problème ci ci suñu ci suñu milieu bi. waaw d'accord d'accord naa ak moom d'accord naa ak. Mhm. parce que démb man bi ma déggee coow yi bi ma déggee wax ne sax baal tool yi ñu ñu ne Bougane euh, nee pare na pour dem liggéey ci président Macky Sall. Mhm. mu mel ni benn genre appel du pied boo xam ne bi ma ko déggee damaa noo bett. parce que mhm. mhm. na bu ñuy wax ci a radical. ak ak président Macky Sall. tey jii mu wax kàddu gi kon tey jii kan lañ war a gëm. ma ko déggaatee après mu def ay précisions ci wax ji nga xam noonu la ko waxee. ak ni ko journal yi doon doon presse presse en ligne doon relayer. comprendre naa explication <laughs> comprendre naa li li mu wax et bu le président de la république woowee nga am xalaat boo war a mën war nga ko jox te loolu yaakaar naa def nañ ci corona bi ñu ñëwee mhm. woo na fi bu nekk laaj leen seen xalaat ñu jox ko seen xalaat teewul ba léegi Khalifa Sall dem fekk ji Macky Sall mhm. teewul ba léegi Ousmane Sonko dem fekk ji Macky Sall te mhm. gis nañ toog tëju waxtaan lu ñeel corona bi mais dafa am lu am yaakaar naa ne tey jii képp koo xam ne da ngay conseillé Bougane Gueye Dany ak da nga koy xelal tey jii boo bi nga déggee ñu ne ne mi ngi wàcceem wala li expliqué genre yooyu da am la metti hmm. parce que xam nga ni Bougane place am du du du côté du côté président Macky Sall hmm. quoi qu'on hmm. ak poste bu mu ko mën a jëg ak lu mu ko mën a jaakaar bu fa ñëw dina ko place am du foofu parce que bu fa demee tey ji dafay doon loo xam ne c'est très risqué lu risqué lay doon te lu mën a yàq image am te loolu mu def ndànk il faut mu def attention parce que comme ñu fàtte ne Abdoulaye Wade utilisé woon na ko ak ak Idrissa Seck. woo ko mu ñëw mu bàyyi ko mu dem woowaat mu ñëw mu bàyyi mu dem ba Idrissa Seck naan moom nen man nen laa moom xeer bu ma dalee sama kaw mu toj mu mu ma toj mm-hmm. expliqué que genre yooyu noonu mm-hmm. tey jii il faut mu bàyyi xelam ne nguur gi mën nañoo jëfandikoo loolu tey jii nañ dégg ne bu gaan am nañ idée yu baax am na programme bu baax. Mhm. ñu woo ko pale benn yoon. boo war ko pale ñaar yoon mu génn dem ñëw ñu ne yee buggoon mu ngi dil ak président Macky Sall. même mhm. su liggéeyul ak moom sax mu ngi dil. dèjà ñu ngi di yàq dara loo xam ci image la moo tax genre nii baax na nga def ay précision mais tamit il faut mu ubbi ay bëtam xool. Mhm. ndax ñi mu jàkkaarlool parce que jeune la. am na lu mu bëgg am na ñu nekk ci ginnaaw am na fu mu mën a jëme réew mi am na lu mu yéene réew mhm. comme am na ko nag il faut que mu am xam ne moom lay doxee journaliste la kenn du mhm. euh, mu mu bàyyi xel ci ci ñi nga xam ne ñoom la am seen kanam mhm. ba nga xamante ne stratégie ñu bàyyi leen ci wàllum politique boobu defoon ndànk rek mën nañ koo surfal ci camp yoo ne parce que tey jii kii bi ñu ñi jël article di ko tasaare nga bindaate noonu kenn xamul lan moo leen eh, waaw kenn xamul moo leen si hmm. hmm. hmm. xamante heureusement pour moom ba nga xamante ni eh, yëf yi du du bind rek du bind sax eh, video la te lam ko nam ko waxee leeral na je pense que ku ñu nettali wala ku lire rek moom mooy gëm mooy gëm loolu mais ku seetaan vidéo bi nga xam si def na ko fële ci Dakaractu da ngay xam ne que kii lu lu leer la wax donc tamit c'est bien ni mu def mu daal di génn rectifié wu di wax ni nga xamante ni tey euh, foofu la bëggoon waxee ba tax na Moustapha euh, li ñu cërloon ci waxtu daanaka li ci des bareetul bi gi mooy def signe dama lay bàyyi nga daal di euh, def sa kàddu bu mujj muy message bi ñu yëkkati jotaay bi. waaw kàddu gi mujj gi may def rek mooy di ko wax sunu mbokku taskatu xibaar yi ak ñëpp rek. Mm-hmm. parfois bëgg jaay sa sa article bëgg jaay sa journal mm-hmm. que yooyu jar dañuy nettali article dañuy nettali benn kilifa goo xam ne dañu koy yàgg di wax. mu ne boo bindee article parfois da dindi sa tur. dafa sa tur papa wala nga dafa sa tur yaay tur ki nga def. Mm-hmm. wala nga dafa yow sa tur sa bopp nga xool ndax di ci gis sa bopp wala tey bu doon yow lañ ko bindee dina la neex. Mm-hmm. kon su boobaa di nga am yu bëri yoo bàyyi xel donc yaakaar naa ne am na benn comportement boo xamante ne. léegi ak réseaux sociaux yi da nga gis nit koo xamante ne wax na lii. Mm-hmm. nga dagg benn extrait bu ndax. wax dugal ko. déformé ko. xam nga rek pour nit ñi cliquer ko daw nga am benn moment boo xam ne da ngay am benn pic sa site ñëpp ñëw visiter ko loolu yaakaar naa ne nga yàqal nit ki jaru ko. Mhm. nañuy xool suñu diggante ak yàlla di euh, noonu euh, ba tax na noonu la ñuy daal di yëkkatee jotaay bi di la jaajëfal Moustapha di jaajëfal Biggi moom mu nekkoon ci réalisation bi ak technique bi ak Biggi ak euh, Dóor waar mi nga xam ne si nii tey moom moo nekkoon ci wàllum xoole bi donc di neen jaajëfal yéen ci nga xamante nii yéen dañuy topp tous ci ci Sunugal 24 di leen ngeen abonné ci sunu chaîne YouTube Sunugal 24 te activer la cloche di am les en temps réel di leen jox dig daje suba incha wala altine